jadi ba tey ci seen scandale du jour toujours le discours du président dafa jur ay kër kii di Omar yéena ci yàb bi ñu déglu ci ko ñëwaat. waa gars yi salaamaaleykum démb Diomaye moom ak Sonko mosuñu nekk ay xarit ay collègues lañu woon waaye luñ ci jaar. Diomaye tuddee na doom Ousmane Sonko. te Diomaye nee biir prison lañu nekk ay xarit donc Kër Massar. Diomaye bi mu fay di yëg di wax ni que yow Sonko jaral na sa bakkat projet bi jaral na la seen bakkat donc kooku bu nekkul sa xarit sa lan la waaye si sa wax dëmb révélé nga man li ma leen yàgg wax ko Diomaye ak Sonko dañu am problème ndaxte problème bi du dara lu dul bi Diomaye toog instant bi ni foofu la Sonko bugg toog instant bi ni te loolu Sénégalais yi nanguwuñ ko yàlla nangu ko mais Diomaye xam na ni ko waa ji mu ngi def lu ne

165 députés dañ leen fal population bi comme ni la tànnee jomay yow député ëpp légitimité yow président bi yow député yi légitimité donc nous leen comparaître ak nit yoo xam ne dañ leen woo feneen ñu war wax Ousmane Sonko war a ak di légitimité bu sénégalais et yow munoo comparer nous ak l'Assemblée nationale es le président de la république Diomaye yow le gardien le chef suprême de la nation le gardien de la constitution Tu es l'article 55 de la constitution dafa le premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale au niveau de l'Assemblée nationale dans l'Assemblée nationale yow nga ne kooku donc yow mun na dem defi leneen feneen heureusement que as compris en hein, nga rappelant nga Ousmane à l'ordre na teg wax bobu ci souf léegi nag dañuy xol bu yo yow yaay président wala mom moy président bu yo dang koy jox ordre en tant que président de la république nga ne premier ministre déclaration politique générale dang koy dem défi assemblée ko mom dina ko dem défi? on va voir bu dee yo li nga waxan ak askan bi nee leen man bu ma conseil supérieur de la magistrature dama ci génn donc jomay yow bul def ni mag Macky nii wii nii non yow magistrat yi luñ la mënta laaj luñ te mënta wax nga des yow yaa yow sa kàddu moo tax sénégalais yi fal la sa yar ak sa wax dëkk moo tax sénégalais yi fal la donc loolu bu mu la jaral ngay dellu ci ginnaaw conseil supérieur de la magistrature Diomaye da ci war a raxas sa loxo ba mu set wecc procureur de la république raxas si loxam ba mu set wecc ministère de la justice mu raxas si loxam ba mu set wecc nga xam ne ñu am une justice libre indépendante wax nga ba wax ci walu ay terre ay hectares yu yu neuf personnes yoré mais boobu yo da nga faté sa wax sa boss yo yo yaa nga 42 mille mètres carrés yo xamné 150 personnes mën nañ ci am ay kër sa ministre bu dëkk Sandiara yo mom wa mairie bi né ñu koy toppe 50 mille mètres carrés bo xamné mom moko jël sa ministre de l'énergie

di ko laal lu tax yow waxoon loolu dañ koy supprimer Diomaye lu tax démb ci débat bi yëpp yëpp yëpp yëpp remettre en cause amnistie bi pour nit dee de waxoo ko jubluwoo ci lu tax ci débat bi yëpp loi bi criminalisé yu góor jigéen waxtaane woo ko tegoo ko ci suuf ci plateau bi nit ñi wax ko kenn osewul élever débat bi tey pays de l'AES li Jonko discours bu mu waxoon en Sénégal ak Mauritanie cinquante cinquante lay war mënul am lu tax waxoo ci mu leer lu tax CEDEAO bi ngeen doon xaa xas di ko saaga te tey sa premier ministre ne CEDEAO ay bandi lañu ay vayu lañu tey moom ak waa AES la promettre yóbbu fa ay militaires sénégalais léegi yow la moo nekk sa position ci CEDEAO comme que yow la ñuy def ko médiateur CEDEAO léegi nga wara a Abdoulaye mais Abdoulaye Bathily bu fa démé heureusement parce que yow boo fa demoon toroxal bu len naroon toroxal en tant que président du Sénégal dafa naroon nek lu graw ci histoire politique Afrique et ci monde bi. léegi nag Diomaye Sonko mom dafa CEDEAO engagé wu ci AIS, yow té nga ñëw nek émissaire représentant CEDEAO contradiction amul seen pôle déclaration de patrimoine nous avons ngi conseil euh, constitutionnel publiquement mais Bobo, est-ce que ce premier ministre fait une déclaration de patrimoine mais je vais man attirer l'attention. attention parce que bi nga fait cette déclaration de patrimoine élection yi tey nga le président de la république nga président de la république bu defee parjure rek mooy dafa démissionner on découvre que président bi li nga ak li xew ci réalité bi cette déclaration de patrimoine am na lu ci woro da nga def parjure te parjure bu amé président dañ ko en tant que premier ministre aussi bu def nga déclaration de patrimoine mu am parjure te Sonko bu déclaration de patrimoine am dafa justice lool lay xaar dem lu déclaration bi yépp Sonko ak guerre mu ngi premier ministre ak le président une séparation loolu yàggatul yàgg ko wax léegi jomay confirmé nee na ak Sonko dañuy xëccoo ci ay intérêt supérieur de la nation donc ñoom ñaar seen voix bokkutul ñoom ñoo bokkoon passif. waaye kii bu président xolam nanguwul ndaxte pour Abib Sy bu nekkee quelque Sy démissionné nekk président nag dafa siège bi 6 moins 9 9 6 6 9 9 6 les gens avaient une petite espoir concernant ce ministre concernant autant pour moi concernant ce président notre président mais cet espoir s'est euh, volatilisé C'est volatilisé espoir à c'est son c'est il est le premier premier ministre déclaration politique générale bi nañ delloo règlement bi mu dem def ko c'est grave doy na waar tristement a la